ñu ngi leen di nuyu yéen ñëpp bàyyiwuñu kenn waaye bàyyiwuñu kenn yéen ñëpp ñu ngi leen di jaajëfal gis nañ seen taxawaay ci résistance bi gis nañ seen taxawaay ci sauver Sénégal gis nañ seen taxawaay ci sauver suñu démocratie gis nañ seen taxawaay ci li nga xam ne moom la ñëpp jublu te mooy fexe ba nooteel jóge ci réew mi ba Macky Sall ñu wàcce ko téye ko atte ko ak képp koo xam ne dafa ànd ak moom ci lii nga xam ne mooy génocide bi nga xam ne léegi ki la dugg waxatuñu léegi waxi ai crime ai legi dañu dugg genocida genocida génocide génocide bom que são ci saw askan lu toll loo xam ne dafa jéggi dayoo foofu la Macky Sall nekk fi mu toll nii léegi ay rey benn benn benn benn rey yi àgg na foo xam ne léegi dañu dugg ci terrain wu génocide léegi génocide foofu la Macky Sall tàbbal boppam ak ñii mu àndal ngeen xam ko ne ko ñëpp partagé ñëpp xam ne léegi weesu nañu léegi fi nga xam ne mooy àpp bi xam ne dañu ne képp ku ko jéggi ci àdduna ci boom saw askan kaso dana la féete kaso daa iman ak képp koo xam ne dina ànd ak yow daañu sa alal daañu teg say mbokk daañu la xañ dund daa iman ak képp ko ànd ak yow ci loolu mooy li ñu tuddee génocide foofu lañ toll partager leen ko bu yaatu ñu ñew xibaar leen waye wax leen lan moy taxaway bi lan mooy jubluwaay bi ci bisu tay bi di leen nuyu di leen ziar di xaar ngeen yaatu ko ñu mëna tambali tàmbali liñ jëf ñu mu yaatu mu yaatu mu yaatu mu yaatu heure pause heure pause bi xam nga heure bi heure pause la mu yaatu rapidement ñu mën fi def live bu gaaw parce que taluñu añ taluñu lek talu ñu naan ñu dem taluñu dikk ñu kenn kenn kenn kenn kenn kenn amatuñu benn yitte ci àdduna lépp aj nañ ko suñu lépp lépp lépp dañ ko aj benn yitte lañu am mooy lii xeex bi amatuñu benn yitte ñu xiifuñu maruñu naanuñu suñu xel nekkul ci kenn xalaatuñu kenn ku dul ñi dee ñi nga xam ne bus bu nekk ñi ngi leen dóor ay bal ñooñu ñooñu tax di xeex ak réew mi ñu bëgg loolu jóge fi mooy suñu yitte fi mu toll nii amuñu beneen yitte bu ma kenn woo bu ma kenn wax dara ngéntewuma gàmmuwuma dégluwuma sëriñ demuma dikkuma takkuma fasewuma bu lekkuma naanuma benn yitte laa am mooy lii ñu partagé ko mu gaaw rapidement jaa jëf maa digaale woon ak yéen boobu ba léegi la ma digaale ak yéen maa ngi ci ngeen ma warul duma leen war mukk su ngeen ma toppee daañu am ndam bu ngeen ma bàyyee di ngeen am coona man ak yéen ñoo fasaale digale la ñu fasaale maa ngi ci bu ngeen ma dégloo ak xel jëfee sama ay tegtal ak xel ak fit ak gëm Sénégal ay fan ñu am ndam tabax Sénégal gi ñu bëgg awma ci sikki sàkk li ma man maa ngi koy def li ma xam maa ngi koy wax di leen jox sama xel di leen jox samay information di leen jox samay pexe la ko des nag ñi nekk ci terrain bi ñoo ko man yàlla dogal na nekkuma ci terrain bi waaye bu ma ci nekkoon tey jii ngeen xam ne lépp dëgg la waaye la yàlla dogal te war ngeen a loolu ndax bi may xeex ne tey jii bu ma nekkoon ci terrain bi fees nañ ma bu yàgg yàgg sànni ma kon dootu leen ma déggati ñu bari ñu naan waaw da war a ñëw ci terrain bi mais su ma ñëwoon ci terrain bi xëy na lii may def mooy ëpp njëriñ ma nekk ci terrain bi kenn ku nekk ak li nga mën xëy na lii may def am na ñu nekk ci terrain bi ñoo xam ne mënuñu ko loolu la yàlla dogal am na ñoo xam ne lii may man mënuñu ko li ma xam xamuñu ko li may def mënuñu ko waaye man na ñoom it loo xam ne man xawma ko mënuma ko mooy nekk ci terrain bi di xeex ku nekk ak léeg-léeg kon ku ne nañ ko jox cëram loolu moo tax ma ne lii la ma yàlla séddee ko it naa ko def ni mu gënee naa ko def ni mu gënee naa ko def ni mu gënee waaye naa ci def sama kéem kàttan ndax xëy na man wet googu la ma yàlla doolele kon naa ko génn def ko ci xeex bi ndax xeexkat xeebul dara kii togg boo ko ci defalee xuliña mu jël boo ko ci defaree carotte mu jël boo ko ci sottilee xorom mu jël boo ko ci defalee nokkas mu jël na safta mu mën a yàq gaa yi mën a togg kon lépp ci biir ci nit la jëm kii xam bu matt mi kii dem ndug ji kii tànn ceeb bi ki koy sóor kii raxas bool yi kii teg raxasu mi ñoom ñëpp ña bokk ci benn togg bi kon na ci ku nekk def te kenn bañ a toog di xaar sa morom lu ci waay mën na ko ki def kii indi ndox di jox xeexkat yi kii def sandwich di jox xeexkat yi kii jël paas bi di jox nit ñi ñu mën a ñëw Dakar ki nga xam ne mooy wax naan nii laak nee la jaar leen fi jaar leen fee ak ki naan partagé leen partagé partagé ndax ñëpp jot ci waaye yow mi koy partagé aussi pour ñëpp jot ci yaa ngi xeex bu ko xeeb xeex la yàlla danga la ci fay partagé bi nga koy partagé ba mu dugg ci nopp koo xam ne xamul woon li xew may wax nga yow nga partagé ko ba mu àgg ci moom mu déglu sama wax ji ba am lu mu yee ci moom ba mu jóg taxaw sol dàllam ne damay xeexi ndax lii ñu ma dégg kat mooy dëgg ku ci seetaan as jaam nga na ñëpp nekk ay gor ñoo ñey jóg taxaw xeex ëllëg bu ñu amee ndam man mi ci wax yool bu ma ci am yow mi ko partagé di ko ci am ki ko dégg ba jóg taxaw dana ci am yool ñun ñëpp ñoo ci yem yàlla fay ñu Sénégal jariñu kon na ku nekk def li mu war a def bu kenn toog di seetaan le Sénégal est en danger l'heure est grave tubaab Sénégal mi ngi ci guuta Sénégal mi ngi à la croisée des chemins olof di ko wax yo Sénégal dafa toll ci selbe yoon selbe yoon selbe yoon mooy nga topp ab yoon di ko topp di ko topp di ko topp di ko topp ba yàgg yoon wi nga àgg foofu ci yoon wi dafay am yoon wu jëm ci càmmoñ bi am yoon wu jëm ci ndeyjoor xamutoo foo jëm àgg nga ci yoon woo xam ne yoon wi daal dinay xaaj ñaar bii càmmoñ bii ndeyjoor xamatoo boo ciy jël loolu mooy croiser des chemins loolu mooy salebe yoon foofu la réew mi toll te Macky Sall képp moo ko fi indi ak ñooñam bëgg a toog ci nguur gi di nguuru daa i mën na duñu wàcc sàcc alalu réew mi yëpp saaf ci suufu réew mi yëpp sàcc lépp lu nekk ci réew mi pétrole beeg gaz beeg lépp ñu sàcc ko jaay ko def seen poche ne duñu dem dañuy toog par force ku yëngu ñu tëj ku yëngu ñu rey loolu la ñuy xool ndax dana ko def wala du ko def loolu la dëkk bi yàlla def fay def yàlla def na fi loo xam ne kenn du fi dee waaw Serigne Touba lañ fi suul Alaaji lañ fi suul Màkka gañu suul yonent bi nit ñaa ngay dee ay wàllu yu yàlla Irak la ëpp fuuf ak i Syrie ak i Égypte nit ñaa ngay dee bu nekk bu ngeen demoon tey jii Palestine la fa tudd ci ay nit yàlla kenn xamul ni mu toll nit deret jaa ngay tuuli nit ñaa ngay dee ay caaxaan la ay tàppale la nit yàlla lañ fa suul Sénégal du tàkk ndax si dëkku Alaaji Maalik dëkk Serigne Touba ay fen la mi ngi tàkk guddeeg bëccëg nit ñaa ngi dee jóg leen ñu xeex laa lay wax amul benn nit yàlla boo xam ne yàlla may na ko dëkk ba ñu ko suul deret du fa tuuru au contraire au contraire jóg leen ñu xeex Sénégal boo dëkk yëpp yem taxaw xeex bu ñu xeexul ñu def ñu ay jàmm xeex rek Macky Sall loolu la bëgg te du am jóg leen ñu taxaw ñu xeex ñu partagé ko mu yaatu. jàpp nañ ñu bari d'après li ko police waxee démb ci ay fenam chiffre yooyu ñu joxe sax ay fen la cinq cent et quelques personnes yooyu day fen ëpp na ko li ñu jàpp ëpp na loolu day fen ki doon ñu doon wax démb ci police ñëpp dañuy fen ay fen lañ génn nañ ci guddi gi di fen ci guddi gi ba ñu noppee ñu génne fen yi teg ci suuf vidéo yi ñu génne gis ngeen ko lépp ay fen la jël dagg dagg dagg dagg ñoom ñëpp noonu la ñuy def ci ay fen la ñuy dox ci sàcc la ñuy dox ci ak ngóor jigéen la ñuy dox ci jaay doole la ñuy dox ci jàpp tëj ci kaso bi lañuy def ci rey suuli la ñuy def sànni ci géej lu ne la ñuy def li ñu rey ci ay nit du jeex ñun sànni nañu ay nit yu dul jeex ci biir ci biir géej gi waaye koor yëpp daañu tëmb génnaat ndax géej loo ci sànni te bokku ci da koy génnewaat bu ngeen taxawee ci tefes gi da gis ñëpp ñii gas nañu suul leen ñii sànni nañ leen ci ay foos ñii dugal nañ leen ci ay géej nëbb koor yëpp ñu bari daañu tàggee seen i mbokk duñu leen gis ndax jàpp nañ leen te Macky Sall moo def loolu loolu c'est génocide bu garaaw a garaaw a garaaw garaaw boo xam ne lépp dina feeñ képp koo xam ne sa mbokk gisoo ko gisoo ko ci kaso yi gisoo ko fenn na nga ko déclaré génne photoom taf ko def ki numéro téléphone bu ñu la mën a joindre ubbi nañu enquête ci côté boobu ñu ngi koy xool comme ñoom ay fenkat lañ police bi waroon na enquête gendarmerie bi waroon na enquête léegi ñoom ay milice lañu ay bandi lañu léegi leen a benn clan la ñuy surveiller benn clan la ñuy toppatoo benn famille benn njaboot liggéeyal Macky Sall la ñuy liggéeyal ak mara Faye Sall ak Farba Ngom ak Moussa Fall ñoom ñi nga xam ne ñoo téye réew mi ngaan ko ko di ko mbubboo ngir seen ay intérêt bopp naan état état état état force reste à la loi république république république amatu fi état amatu fi ay dooweraam ñoo fi nekk ay wuyu ay band ñoo nekk ci bopp nguur gi këf ko téye ko ne duñu ko bàyyi ndax lan seen i njëriñu bopp seen i intérêt bopp di rey di tëj di suul di dugal sànni ci géej gi di dóor ay bal ngir seen ay intérêt bopp loolu day jeex ndax dix-huit millions de sénégalais mënuñoo taxaw naan dañ leen tënk def leen ay jaam loolu boo amee mooy senegal gépp na takk na ñëpp de man duma ko fekk duma ko nangu mukk ñu partagé ko mu yaatu école yi bu kenn jàngi tey ñi ngi génne école yi li ma ci gën a neex tey mooy xeex bi léegi dafa décentralisé wu Bakel Kédougou Tamba côté yooyu yëpp peggu réew mi ñoom ñoo jog léegi ñoom ñëpp léegi ñoo jog à l'intérieur du pays léegi ci biir réew mi la nit ñi jóg taxaw fépp ñëpp a ngi jóg tey tey ci altine bi ñëpp a jóg Dakar moo doon xeex ak yooyu waaye léegi fépp ay tàkk fépp a ñëpp taxaw Kébémer jóg nañu Bakel jóg nañu Kédougou Tamba foofu yëpp gaa yaa nga taxaw fi mu toll nii loolu moo ma neex ci xeex bi nga xam ne dañ koy généraliser Sénégal gépp ay jóg ñi nga xam ne mënuñoo ñëw Dakar fa ngeen nekk na ngeen fa jog ñaxtu fa génn na ñëpp jóg papa yeeg yaay yéen ñëpp ci biir réew mi ngeen jog pacifiquement xeex bi Dakar la yéen ñi nekkul Dakar bu leen xeex région yi bu kenn xeex technique la leen jox def leen leen wax région yi région yi génn leen massivement papa yaay doom kër yi génn leen dem ci seen bayaal yi ëtt yi kuur yi ngeen ñëw fa fees fa dell yéen ñëpp ngeen sol seen yére yu weex takk seen ay morso yu xonq na ñëpp génn ci région yi massivement ngeen mobiliser wu filmer ko àdduna bi yëpp gis leen ngeen àndu leen ak Macky Sall na wàcc région yi Dakar nag moom dañuy xeex dañuy taal dañuy toj dañuy lakk ku mën a ñëw ndakaaru na nga ñëw UCG xaw ma UC lan ñooñu nga xam ne ñooy nettoyé di jël seen camions yi biir ndakaaru na dem seen parking yi fi oto yi nekk camions yi ñu taal oto yëpp oto yëpp nañ ko taal mu tàkk bu fi benn magasin ubbi bu fi benn oto duy essence bu kenn dugg ndakaaru bu kenn génn nañu barricade Dakar autoroute yi VDN bi corniche bi euh, autoroute Malick Sy bi nga xam ne moo jóge Padoa jëm Dakar foofu yëpp Bourguiba bi VDN bi VDN 3 bi corniche bi route de euh, route de bi yaraax bi nañu ma barricade lépp bareel na ko jël ay camion teg ko ci kaw bëtt ko lu mat cinq dix vingt camion ay oto teg leen ci kaw tali bi latéralement ba kenn du dem kenn du dukk bëgguma benn prox ndoll bu kenn jàll na ngeen ma ko bareel ba janax janax xam ngeen janax xaj na fu ne ba janax du am fu mën a jaar jël ay saako duy ci ay suuf lu mat ay cinquantenne centaine de saaku tegale ko ci kaw tali yi barricade ak ay check point yoo xam ne balaa kenn duggati di nga joxe patte blanche loolu laa bëgg ñu xam ne Dakar ni ngi ci suñ loxo Macky Sall wàcc nu mu gën a gaawee sinon ñu fekk ko ci pale bi daa ngi dem ci pale bi bu leen yàkkamti dem ci pale bi dafa am stratégie am ay étape étape par étape def leen li ma leen wax d'abord ngeen bloqueel ma Dakar bloqueel leen ma autoroute bi ubbi nañ ko bàyyi nit ñi dem ak ñëw loolu lépp ñoom ñoo ko def pour lan pour bëgg nit ñi génn Dakar tëjal leen ma autoroute bi tëjal leen ma route de Rufisque bi tëjal leen ma VDN bi ñett axe yooyu ba ngeen ko tëjee kenn du dugg kenn du génn étape su ngeen ko defee ba noppi ma wax leen leneen lu ñu ciy teg bu leen waxati ay waxu dem euh, palais bu leen waxati ay waxu dem fenn léegi dañuy changer stratégie dañuy changer stratégie bis naka tey jiite altine bi tëjal leen ma axe yi demal leen ma ci VDN bi parking oto yi ngeen taalal ma ko yéen ñi nga xam ne yéen a nga ci biti nekku leen Dakar waa Bargny waa Tëngéej waa Njas waa Malicounda waa yéen ñi jege aéroport bi waa Pout yen ñi nga xam ne yéen ñëpp aéroport baa ngi seen wet yéen dem leen ngeen bloqueel ma aéroport Nges ba benn avion du fa wàcc demaguñu pale nañu aj dem pale bi nañ ko aj dafa am liggéey bu ko njëkk d'abord parce que dañu def erreur stratégique dañu nekk diko ko corriger actuellement voilà parce que dañuy teg doxal bu doxul ñu tegaat puus doxul dañuy taxaw nag ubbi suñu xel yi xool ban yoon la ñuy jaar boo ñëwee ubbi bunt mu lànk nga ubbi mu lank da ngay ut parax ndoll da nga jaar ci dañuy dox ci xel di liggéey ci xel moo tax ma ne naa taal lu mu gën a gaaw ma wax leen lañ war a def bu leen waxati nañ dem ci pale bi dem ci pale bi mooy mujj àggaguñ fa fii ak ñaari fan daañ dem ci pale bi mais balaa booba tëjal leen ma aéroport bi parce que armée yi ñu ngi wàcc lacrymogène yaa ngi wàcc bomb yaa ngi wàcc ak lépp ñu ngi koy wàcce ci aéroport Nges bi ak aéroport Yoff bi tëjal leen ma aéroport Yoff bi tëjal leen ma aéroport Diass tëjal leen ma aéroport Yoff tëjal leen ma aéroport Diass tëjal leen ma aéroport Yoff tëjal leen ma aéroport Diass wax naa ko waxati ko wax naa ko waxati ko qu'est-ce qui se passe lan moo tax mënu leen koo def wax leen ma lan la lan moo leen të ma wax leen fu ngeen jaar lan la qu'est-ce qu'il y a amu leen fit bëggu leen Macky Sall jóge fi dégg bëggu leen mu dakk qu'est-ce qui passe déglu leen ma dégg leen ma jëfal leen ma bu ngeen ko defee dee gi dakk ndax kii rey kenn la mooy Macky Sall lii ma leen di wax bu ngeen ko defee léegi mu takk ay bagaasam tubaab bi génne ko réew mi wala ñu fekk ko fu mu mën a nekk Sénégal jàpp ko tëjal leen ma aéroport Diass tëjal leen ma aéroport Yoff est-ce que li ma wax leer na hôtel yi nekk ci àll bi foofu lakk leen leen lépp ngeen tëjal ma Ndakaaru bu kenn dugg bu kenn génn tëjal leen ma Dakar VDN 3 VDN normal route de Rufisque bi yaraax tëjal leen ma autoroute malik Sy padoa d'Oie bi tëjal leen ma li nga xam ne mooy autoroute à péage bi ngeen tëjal ma ko kenn du dem kenn du dikk defal leen ma loolu axe bi nga xam ne mooy fi autoroute bi ñëwee ba ñëw ci aéroport bi di jëm Mbour axe boobu ngeen baareel ma ko kenn du dem kenn du dikk ngeen tëj ko ñu tëj hermétiquement Dakar bu ñu ko tëjee ba foofa pare nag jël ay gaal ay nappkat daal di def ceinture au niveau de la mer lépp loo xam ne géej gi la ci Dakar ñu jël ay lébu jël ay nit jël ay gaal wërale ko ceinture Dakar jël gaal dugal ci ay nit dugal ci ay cocktail molotov dugal ci suñu ay jëmtuwaay ñu rangal na woon nag daal di jël Dakar ceinture ko ba kenn dugg benn bato du costé benn bato du dugg Dakar ñu tëj port Dakar yi tëj lépp. tëj ci biti tëj ci géej gi defal li ma li ma leen wax nga xam ne Macky Sall du génn avion du jóg bato du dugg oto du dugg Dakar dañu nekk def blocus Dakar tëj ko ba mu tëju ñu dem jàppi Macky Sall def leen li ma leen wax xam ngeen volu Air France Air France ak Turkish Airline Turkish Airline mooy compagnie aérienne bu Turquie ak Air France bu France chaque fois bu ñëwee Dakar dañuy indi ay armes dañuy indi ay munitions dañuy indi ay lacrymogènes dañuy indi ay balu fetal yu bees tàq ci ay conteneur def ko ci ay palettes ay palettes ay ay ay ay palettes yu rëy rëy rëy ay tonne tonne tonne balu fetal ak ay tonne tonne tonne lacrymogène ak ay tonne tonne fetal bus bu nekk ñu ngi koy indi di ravitailler parce que ñoom nee nañ du ñu bàyyi dañuy xeex ak ñun ñu rey ñu wala ñu rey Sénégal gépp mais du ñu bàyyi du ñu dem parce que soobu nañ ci ba noppi duñu dellu ginnaaw reyante dañu ni jàpp rey leen wala ñu rey ñu ba ñu jeex ci aéroport bi lay wàcc parce que dañ koy commandé mu ñëw barki démb wax naa leen benn ay palettes yu rëy ñëw yu bari ñëw na Air France wàcc aéroport ñu récupéré nañ ko moom lañ nar a xeexee ak yéen tegal leen ma aéroport yi xam naa li ma leen di wax xam na ni ñuy xeexee xam naa naka la ñuy defee stratégie xam naa naka la ñuy gañee dañu nekk guerre ak ñi def leen li ma leen wax ngeen baal ma parce que des fois damay xool commentaire yi xool ba xam qu'est-ce qui se passe voilà ngeen jéggal ma su ma nee tekk rek c'est parce que maa ngi ci commentaire yi bon j'ai pas l'habitude mais am na ñoo xam ne xëy na dañuy saboter ku fi saboter rek wax leen ko ma bloqué ko rapidement parce que soxla wuñu ñu fi nekk saboter ay patriote lañ soxla ay xeexkat ay combattant soxla wuñu ay défaillant ay doomu wengal ngemb ay doomi lappatooke ay doomu biiral wuñu leen fii na leer voilà waa jas ñoom ay tappet lañu waa jas ay tappet lañu xam naa ne baax dama leen mere sax duñu tus duñu ay patriote gëmuñu Ousmane Sonko gëmuñu Pastef gëmuñu dara ay mboqat lañu jas amul góor yàlla ay ko fa nekk ay tappet lañu ay tubaab lañu gëm ki ay jaay suufe ki ay tappalee ki ay yu kenn xamul jas ku la ne fa la da lay nax bu leen leen wóolu amuñu man uma confiance ci waa jas duñu dara ay mboqat lañu xeexuñu jas ñëpp a ngi xeex ba mu des ñoom gëmuñu tus donc ñun Dakar Bargny Tëngéej Rufisque nañu uti ay nit wàcc ci aéroport bi sànni fa ay cocktail Molotov tëj aéroport bi dóor fa ay kii mu tàkk avion yi benn du wàccati voilà kon nañ ci na ñëpp génn ci mbedd yi tey le premier jour semaine bi lundi na fépp tàng na fépp metti na ñëpp génn amul mag amul ndaw amul xale amul mag amul góor amul jigéen amul papa amul yaay xeex bi ñuy xeex pour ñëpp la bàyyi leen seen kër yi nga di toog te ngeen génn ànd ak seen doomi ñu taxaw dëggal suñu bopp jaamaarloo ak Macky Sall lii mënut a lii mënut a continuer ñoom daanu nañu ba noppi nguur gi jeex na ndax réew amatu fi senegal lépp taxaw na jóg leen ñu taxaw xeex ak Macky lii mënut a continuer rey nañu ay centaine de ay téeméeri nit sànni ci géej gi gas ay kàmb suul leen fa di leen nëbb lépp dina feeñ seen nervi yi gis ngeen leen commencé nañu génn di wax ndax li ñu def dafa garaaw moo tax képp ku ànd ak Macky Sall ñu dugal la ci ak tuuxi duna jox la ay fetal dina reyloo dina def la loo xam ne yoon da tere nga ànd ak ñoom ni ñu def aji saar lañ lay def dañ lay dugal ci seen i complot nga ànd ak ñoom ci ba taq ci rib boo noppee ñoom ñu génn roccee ko taxaw fële daal di lay dugal ne yow yaa ko def boo liggéey bu ñuy àtte yow la ñuy àtte bu ñuy tëj yow la ñuy tëj ndax li nga seq ak ñoom binduñu ko ci benn kayit amul signature amul dara seen tur ci dañu taxaw ne suñu yoon nekku ci mosuñu laa xam mosuñu laa jox xaalis mosuñu laa jox fetal xamooñu xamooñu la mosoo dégg doo am benn preuve yow nervi bi ñuy utiliser yow bu ñu noppee ci ñun ñii ci yow dañ lay rey ndax bëgguñoo bàyyi benn trace niñ nar a def Adji lañ lay def mooy Adji Sarr gis nga noppi nañ ci moom bu ñu paree dañ koy liquider rey ko wala ñu dox loo ko yow nervi bi ñu jox fetal di la fay cinquante mille ak vingt cinq mille nga yaakaar na yaa nekk xamoo lu ne bu ñu paree ci sa kaw lañ dañ lay rey parce que bëgguñu nga nettali wala nga wax duñ la bàyyi mukk nga dellu sa kër say mbokk nañ leen képp ku engagé wu nervi ànd ak ñoom bu ñu noppee ci ñun ñii ci yéen lañ jëm yéen njëkk a rey ndax dañuy bañ la nga seq ak ñoom nga wax ko wala mu génn ndax cour pénale internationale muy justice internationale dafa nar a enquête daf leen n a jàpp ñoom ñëpp kon yéen ñi nga xam ne yéen yéenee nervi yi ndax bëgg xaalis bu yomb ak mbër yi ci nekk ak képp ku ci nekk xam seen tur yi ngi koy bind indi diko top benn par benn bu ngeen teelul delu ginnaaw def maya culpa jéggalu sénégalais yi arme yi leen jox ngeen wëlbatiku jël ko ko dem ci seen kër yi ñom ñi and ak Macky Sall ñom ministre yi ñom Farba Ngom ak ñom Macky ki Mariam Fassal jël ari do leen ko seen kaw yoon au nom du peuple jappalé askan wi and ak askan wi jël askanu. yi nga xamne ñom ñoo leen ko jox pour ngeen ray ci askan wi ngeen wëlbatiku and ak askan wi ak arme yi dem fekk leen ci seen kër yi ray leen ñom bu ngeen ko deful bo askan wi mo leen di atté ndax aw askan kenn mënta xex ak mom ndax mëno ray ñëpp te yag yag yag dañuy ñun te képp koo xam ne ñoom dugal na la ci guute gi jox la ay arme xaalis naan la dama rey askan wi da nga dugg kaso daa iman say mbokk dañ la ñàkk daa iman te yow ci sa bopp dootoo fi tekk ci réew mi daa iman dara koo jur du fi tekki dara sa jabar du fi tekk dara say doom say sët ba ëllëg yow dootu leen fi tekki dara kon yéen nervi yi yéen laay woo dernier appel dernière chance di leen wax ngeen ñëw fekk si askan wi parce que xeex bi dañ koy gagné te gagné nañ ko ba teg armée yi wala ngeen jël ko utiliser ko contre ñoom ñi nga xam ne ñoo leen ko joxoon pour ngeen rey askan lii laay digal nervi yi bu loola weesoo may police gendarmerie armée administration yep l'administration gouverneur préfet sous-préfet les inspecteurs des impôts, les inspecteurs des douanes, les inspecteurs des finances, les inspecteurs du trésor, les inspecteurs du travail, toutes les directions, tous les services de l'État maa ngi solennellement en tant que patriote républicain ngeen décider à partir de tay ci lundi bi désobéir à tout ordre illégal lepp lo xamné ordre bu jóge ci ñoom ñi nga xamné ne daanu nañu ñu nguur gi ngeen désobéir banque sen loxo bu kenn liggéeyati bu len diligenter te ben document bu len exécuter te ben ordre bu jóge ci ñi nga xamné yëratu ñu réew mi réew mi wàcc na ci sen loxo ndax ñi ngi ray askani mënutu ñoo yor réew mi dañ leen di dañ leen japp mangi wo toute l'administration dans toutes ses composantes à désobéir, à ne plus agir, à ne plus faire fonctionner quoi que ce soit que ce qui est aujourd'hui vital pour l'intérêt du pays et l'intérêt des populations. Au-delà de ça, que l'armée, la police, la gendarmerie, l'administration, les gouverneurs, les préfets, les sous-préfets, tous les corps et les démembrements de l'État. Je vous invite à désobéir à tout ordre qui ne vise pas l'intérêt général, ordre yi jox yëpp yoo xam ne pour seen ay intérêt bopp la pour seen ay bopp bu ko kenn exécuter parce que bu ngeen ko exécuter vous serez responsable et demain vous serez jugé et guillotiné par le peuple donc c'est le moment ou jamais de vous repentir de revenir vers l'essentiel et l'essentiel c'est la volonté populaire l'essentiel c'est l'intérêt général supérieur du peuple l'intérêt général supérieur je dirais même suffisant c'est l'intérêt c'est la volonté populaire rejoignez le peuple parce que le peuple est souverain le peuple est éternel le peuple gagnera cette lutte, le peuple gagnera ce combat. Je vous appelle, vous tous, de l'administration, dans n'importe quel service, où que vous soyez dans l'administration, rejoignez le peuple sénégalais. Nous avons gagné le combat, nous allons donc le gagner imminemment et nous allons juger tous les traîtres, tous les lâches qui ont eu donc à suivre des ordres illégaux qui ont été exécutés de façon à compromettre la volonté populaire. Je vous donc donne l'opportunité de vous repentir. Est-ce que je suis clair ma di ko wax ci olof képp ku liggéey ci nguur gi ak foo mën a nekk maa ngi lay woo nga banque sa loxo ordre bu ñu la joxati jóge ci politiciens yi Macky Sall ay ministre am ak ay directeur am ordre bu ñu leen jox lank leen ko bu leen jëfandikoo ci benn ndogal bu jóge ci ñoom ndax ñoom joxewuñu ndogal buy sàmm Sénégal joxewuñu ndogal buy sàmm doomi Sénégal joxewuñu ndogal buy suqali Sénégal ndogal yi ñuy joxe yëpp seen bopp la seeni njaboot seeni am-am seeni koom-koom seen jàmm seen dund seenu noos ci loolu la ñuy dox guddi ak bëccëg askan bi yittelu leen Sénégal yittelu leen dund askan bi yittelu leen jàmmi Sénégal yittelu leen kon yéen ñi nekk ci nguur gi yéen ñëpp di liggéey te wóor na ma yéen ci ëpp bari ngeen lool nekk ay patriote bëgg réew mi di liggéey ngir bëgg Sénégal soqaliku defu leen politique waaye Sénégal ngeen di liggéeyal ñi ki ci jiitu di armée bi di ki topp gendarmerie ñi nga xam ne ñoo fa des ci ay patriote police ñoo fa des ci ay patriote maa ngi leen di woo ak administration bi yëpp inspecteur des impôts yi inspecteur des finances inspecteur du trésor inspecteur des finances inspecteur donc du travail yéen ñëpp les inspecteurs yi ak ak les colonels de douane yéen ñi nekk ci douane l'administration centrale les gouverneurs les préfets les sous-préfets les ñëpp ñi ngi leen banques woo ngeen banque loxo ndogal bu ñu leen joxati te ne du ngeen ko def ndax réew mi mi ngi réew mi na téléphone daañu la tëj ëllëg sa ngir dund sa njaboot sa alal yëpp da nga ko ñàkk lépp luñ la xooy jox la ko lu mu bari bari ci alal dañ koy nangu dañ koy nangu wàcce la tëj ci kaso bi sa njaboot torox ñu toroxal leen yéen ñëpp dootu leen tekki dara ci réew mi bu kenn xaw ma ko woon bu kenn waxuñu ko woon kenn Akhenaton seen général wax na fi réew mi jëm wax na képp koo xam ne yaa ngi def loo xam ne du njëriñu askan wi la la cay fekk ëllëg tey jii bul na xaw ma ko woon moo tax ma di ko wax pour ñëpp xam weesoogul na kenn ku ne nga gi ginnaaw ndax gis ngeen na askan yu taxaw na te lii mu dëgg man te mooy wàcce Macky Sall nangu réew mi defar ko kenn mënu koo teree addu day am par force parce que taxaw nañ ci axe nañ ci ba ci cëppaandaw gi ay bis moo ci des mag Sall wàcc kon dellu leen ci askan wi ngeen ànd ak askan wi ndax ànd ak askan wi mooy tax nga mën a mucc ànd ak groupe ay bandi ay jaaykatu drogue ay cocaïne trafiquant faux billets milliards nappaaji ay caga góor jigéen ngeen ànd ak ñoom da ngeen di nguuru daa iman ay caaxaan la ay tappale la du dëgg te jeex kon bu loolu weesoo may wax ne parking seen oto yi VDN bi ak fépp fu ñu teg parking almadi doomu Macky Sall bi Amadou Sall parking yi ci bari moo ko moom moom ak xaritam yi mu àndal ñu naan dañuy jënd basin dañuy tabaski dañuy waajal tabaski dafa amul ren ren kenn du tabaski ay xar dugg Dakar ren amul xar amul dara kenn du tabaski tabaski du fi am benn imaam du fa jiite kenn imaamu góor jigéen yi imaamu soos soosaat yi imaamu doome xaraam yi benn góor jigéen du fi tey jiite kenn tabaski ren tabaski wuñu taluñu tabaski xar du fi dugg dara du fi dugg Dakar dañ koy bloqué bloqué Sénégal gépp ba Macky Sall wàcc waxi tabaski bu ñu ko kenn wax diaspora bi bu leen yónnee cent franc bu leen yónnee dara jël leen ngeen def ko ci xeex bi financé le combat Macky Sall jóge fi taluñu ay tabaski taluñu leneen li ñu tal mooy libere réew mi li ñu tal mooy arrêté rey gi li ñu tal mooy defaraat tabax réew mi nañu jël alal gi ko ci xeex bi ngeen financé combat bi wax naa ko ba tàyyi voilà wax naa ko ba tey bu ñu paree dinañ posté benn lien paypal boo xam ne lu waaye am def ko ci parce que il faut ngeen financer xeex bi yéen diaspora bi lu ngeen am ngeen def ko ci ñu jàppale suñu patriotes yi nekk ci terrain bi ñu mën a xeex bi daa ngi dugal benn lien paypal boo xam ne après posté ko képp koo xam ne mën nga caa dugal dara nga dugal ko ci xeex bu ñu dara ñu jàppale ñu nekk terrain bi di xeex parce que dañu soxla yu baree bari di ñaawlu aussi jigéen ñi nga xam ne jóge nañu Casamance ñëw Ndakaaru di def résistance ñu fekk leen Colobane teg fa ay seen ay oto waa gendarmerie bu Colobane dem jàpp leen di woo waa Colobane Gueule Tapée Fass di woo waa HLM di woo waa Yaraax di woo Ndakaaru gépp ngeen def mouvement ñu dem dugg section de recherche arme ya fa la nekk munitions ya fa la nekk ñu dugg section de recherche dugg fa jël ko genn femmes yi libéré leen dem ci prison yi libéré leen dem rebeus libéré leen pour l'instant rebeus la section de recherche ak fépp fu prison ñe nek fépp fo xamna ne ay prisonniers politiques ñoo fa nekk ñu japp jigéen ñu japp tëj nañu dajji kasso yépp dajji kasso yi dajji commissariat yi dajji section de recherche jël arme yi fa nekk wëlbatiku la ak ñoom comme ñoom nee nañu réew mi léegi dafa am ay gan yu fi dugg ay jàmbur ay nit ñoo xam ne ñu ngi ci xeex bi yor ay fetal ay arme de guerre ñoom ñoo ko wax démb police di fenn léegi dañuy def loolu sax ñun léegi foofu lañ jëm dañuy ñu xam ndax ñun bu ñuy xeex ak ñoom duñu làqatu dañuy jël ay fetal jaamaarloo ak ñoom dem leen section de recherche bi dem jàppi jigéen ñu jóge Casamance ca Colobane ngeen dajji ko dugg ci biir yéen ñëpp ngeen jël section de recherche jël arme yi ñu wëlbatiku jaamaarloo ak Macky Sall ak police bi ne ñenn ñi lañ ñu xeex ak ñoom ñu reyante ak ñoom parce que loolu lañ bëgg bu ko kenn tàyyi na ñëpp jóg di woo diaspora bi yéen diaspora sénégalaise bi yëpp ngeen xool ci sénégalais yi nekk Italie Milan ñoom ñoo jëlagul ndam ni diaspora bi yëpp diaspora bi yëpp àdduna bi yëpp sénégalais yi nekk Italie ñoo jëlagul ndam ci xeex bi ni ngi def ni ngi def consulat wu Milan loolu moom la diaspora bi yëpp war a def ñi ma ci war a waxal France wax naa ci ak ñoom États-Unis wax naa ci ak ñoom ak ñenn ñenn wax naa leen ngeen occupé consulat yi ak ambassade yéen sénégalais yi nekk ci diaspora bi di ay patriote di ay xeexkat di ay combattant xeex bi tam da ngeen cee am wàll consulat yi ambassade yi dañ ko war a occupé kenn du dugg kenn du génn kenn du liggéey bloqué lépp jël caabi yu téye taxaw génn ñëpp ci biti blocus ni ñu koy defee Sénégal noonu lañ koy defee ci ambasad maa ngi woo sénégalais yi nekk ci diaspora bi yëpp fépp fu ci waay mën a nekk dëkk boo mën a nekk mu am consulat ak ambassade organiser vous ngeen dem ngeen bloqué ko ba kenn du dugg kenn du génn ñu génn ñëpp tëj consulat yi tëj ambassade yi parce que le Sénégal est en deuil le Sénégal est terre Macky Sall moo ko def ba àdduna bi yëpp xam ko ngeen filmer ko posté ko def def ko ci réseau yi xam ko en français en anglais et en wolof su ngeen ko mënee dëkk yi nga ne c'est en anglais vous le faites en anglais def ko en wolof De yi vous xam français la ngeen def en français et en wolof mu leer ngeen pas ko ci àdduna bi yëpp àdduna bi yëpp xam Sall féliciter aussi à Bordeaux les patriotes de Bordeaux qui sont seen taxawaay ni ngeen consulat du Sénégal bi que Bordeaux en France c'est formidable c'est comme ça la résistance doit être une action elle doit aller au-delà des paroles il ne faut nous ko ci ay jëf gannaaw ay wax dañ ko a jëmmal kon ma ngi féliciter wa sénégalais yi nga xamné ñoo nekk Milan rafet na Sénégal nañ ci yow bi yépp gis nañ sen liggéey ci ni ngeen consulat ak ambassades aussi Bordeaux Paris ñi ngi Lyon ñi ngi Marseille ñi ngi Portugal ñi ngi leen Espagne ana Portugal ana Belgique ana Angleterre ana waa Allemagne ana waa ana waa États-Unis ana ana waa ana waa ana waa sénégalais yéen a ngi ci àdduna bi yëpp def leen li waa Milan def ak li waa Bordeaux def mooy bloqué consulat yi ak ambassade ci xeex bi la bokk kon tey mission bi mooy na mbedd yi fees dell élèves yi étudiants yi professeurs yi combattants yi commerçants yi maçon yi menuisiers yi ferrailleurs yi peintres yi chauffeurs yi transporteurs yi baykat yi sàmmkat yi nappkat yi na ñëpp jóg ñu génn ci mbedd yi na ñëpp jóg ñu génn ci mbedd yi ci Sénégal gépp rawati na Ndakaaru Sénégal gépp la ñu wax rawatina Ndakaaru ñu taxaw jaamaar law Macky Sall jaamaarloo ak Macky Sall mu wàcc amal ñu jox delloo ñu suñu réew réew mi ñoo ko moom moomu man mii di wax ak yéen moomu ma ko yow mi may déglu moomu ma ko dañu ko bokk lu ñu bokk nag kenn du ko aaki mooy ne moo ko moom di buuba ko bummi dafay dakk jóg leen ñu dëgg suñ bopp nekk ay doomi gor wala ñu nekk ay doomi jaam ñaar rekk fi nekk gor wala as jaam ku toog seetaan ab jaam nga képp ku jóg taxaw di xeex ci gor ñi nga bokk te yàggatul daañu teg ab liste wax liste bii ñi ñu ciy bind mooy gor ñi liste bii ñi ñu ciy bind mooy jam ñi jaam ñi mooy ñu taxaw lànk na duñu xeex ñoom ñëpp ay jaam nañ képp ku xeexu ci réew mi waxoo ci yéyoo ci yàbbiwu ci jógoo taxaw takk sa ndigg ci jaam yi nga bokk ak foo mën a bokk ak ku la mën a jut ci jaam yi nga bokk réew mi dafa toll ci ñu xàmmee ñi bëgg réew mi ak ñi bañ réew mi réew mi dafa toll ci ñu xàmmee ñi nga xam ne askan wi moo leen ñor ak seen bopp réew mi dafa toll ñi xam ñi nga xam ne seen intérêt ci lañ nekk wala intérêt askan wi dafay leer nañ par force parce que ñun ñoo ëpp ci réew mi ñun ndaw ñi ñun ñoo moom réew mi parce que ñooy majorité bi soixante dix quatre vingt pour cent de la population à moins de trente cinq ans kon man sax bokku tuba ci ndax am naa lu ëpp trente ci ndaw ñi yéen ndaw ñi yéen ñi am moins de 35 ans man weesu naa ko kon bokkatuma sax ci yéen waaye a sonn kon yéen ñi am moins de 35 ans xeex bi seen xeex la waaye seen papa yeeg seen ndey dañ cee war a ndax ñoo leen jur indiwu leen seen bopp kenn loxosu leen ku fi judd rek papa ak nday ñooy kucc kucc ba nga judd man nag ñun ñëpp ci yem nañu dëggal suñu bopp te wax dëgg jur doom nag da koy sàmm ndax yàlla moo la dénk nga war ko sam war ko taxaw ba mën a tekki waaye jur sànni comme ay jën jur sànni comme ay jën jur sànni comme ay jën loolu jën rek mooy def di jur di sànni jën képp mooy jur dem yoonam waaye kanaari bu juree day sàmm ganaar bu juree day xont ku jur toppatoo ba mu des yéen papa yeeg yaay yi sénégalais yi lan ngeen di xaar pour jóg ànd seen doom yi ànd ak ñoom ci seen naqar ànd ak ñoom ci seen bëgg-bëgg bi ànd ak ñoom ci xeex bi ñuy xeex ngir bëgg a defar seen àdduna lan moo tax ngeen lànk ne du ngeen jóg ragal dee da ngeen dee bu ngeen xeexee da ngeen dee bu ngeen jox ma jox ma paas màkk jox ma dépense tabaxal ma kër jëndal ma gas neer waaye bu sa doom di xeex pour tekki doo ko dimbali doo ko jàppale waaye bu tekkee nga ñëw taxaw bàyyi leen lii as gor du def lii as gor bu juree doom doom ja tële day jóg taxaw takk ndiggam ànd ak doom ji pour doom ji mën a teg lii mooy as gor lii mooy yëfi dëgg ku leen ko wax yéen papa yaay wax na leen dëgg ku leen ko waxul tamit nekk na naafeq nit du naafeq jóg leen ànd seen doom yi ñu xeex dagg na internet bi dagg na Facebook dagg na Twitter dagg na lépp nee na waaye du tax mu sotti loo dagg dagg dagg internet bi loo jàpp-jàpp journaliste yi tëj loo def lu la neex daal di ne yow rek yaay wax jël say journaliste jël say média jël te TFM jël lii quotidien jël les échos jël dégg nga maam libération yéen ñi ànd ak Macky Sall bu ngeen xëyee fenn fenn fenn ci seen i journaux tasaare ñun liiratuñu journal gëmatuñu leen faalewuñu leen du fem du 2STV du kenn te ñoo ngi ci seen kaw yéen waa Ndakaaru tey bu ngeen génnee dama bëgg ngeen taalal ma TFM dama bëgg ngeen taalal ma 2STV dama bëgg ngeen taalal ma libération dama bëgg ngeen taalal ma Seneweb dama bëgg ngeen taalal ma le soleil dama bëgg ngeen taalal ma le quotidien bu ma jambal dama bëgg seen fenkat yooyu yëpp di fen ñoom ñëpp ay leeral ak ay lëndëmal ay Seneweb ak ñoom ñëpp ngeen dem ci seen place yi fa ay lacrymogène fépp tàkk te ñoom ngeen ci jàpp na dee ñu ko yoof ay doomi xaram lañu ce sont les radios de mille collines ñoom ñoo ànd ak Macky di ko defal propagande naan ko yewa yewa réew mi dara xewu fi acca acca acca di ko propagandal mu jàpp doomi sénégalais di rey ñoom ñooñu ndax lan xaalis bi mu leen di jox gannaaw ñi nga xam ne am na ñoo xam ne ñi ngi taxaw naan ko duni ni ngay def du dëgg du yoon teguwul ci yoon mu jàpp tëj daaneel seen i fréquence tëj Walfadjri jaa jël Serigne Saliou Gueye yóbbu ci kaso bi yor yor mu tëj ak ñeneen ak ñeneen ñi nga xam ne ñoo nekkoon ci réseau yi di wax mu fexe ba kenn dootul wax moom képp mooy wax li ko soob ak ñi ànd ak moom mu leen di wax loolu li ko soob ñoom képp ñooy wax ci réew mi ngeen ne réew mi am na ay xalif généraux ngeen ne réew mi am na ay sëriñ ngeen ne réew mi am na ay nit yàlla da ngeen di fen du dëgg du yoon réew mi ay naafeq ñoo fi nekk sëriñ amu fi ku ragal yàlla amu fi ay bandee fi nekk tey réew mi ci kaw di ko séddoo dégluwuñu sëriñ dégluwuñu xalif dégluwuñu kenn dañuy xeex ba am ndam te boo liggéey bu kenn taxaw na maa ko ñaan bu kenn taxaw na ba sama barke baay bu kenn taxaw na réew sama maama ko moom diw ko moom réew mi kenn moomu ko ay fen la réew mi sénégalais yi ñoo ko di xeex kenn moomu ko sénégalais yi ñoo ko moom bu ko kenn moomoon faj ko bu réew mi su ay fen ci la ñuy dëkk bus bu nekk naafeq réew mi réewum diw la réew mi réewum diw la réew mi du réewum kenn réew mi réewum sénégalais yi réew mi ñi ko moom moo ñiy xeex pour réew mi baax ñooñu ñoo moom réew mi waaye képp ku xeexul bokkoo ci réew képp koo xam ne dañ lay dàkkanteel réew mi te defoo dara dañuy fen réew moom réew mi réew mi ko moom mooy ki ciy sonn ki ciy wax di ci jëf di ci dox di ci def pour que baax kooku moom moom réew mi waaye moomoo réew mi boo léegi bu fi kenn taxaw ne barke diw wala maamu diw wala diw ak diw moo tax ñu am ndam li ndam ni dañ koy xeex ay bakkan ñooy rek bus bu nekk nit ñaa ngi dee ñuy suuli ñoo moom réew mi seen bakkan yooyu di rot duñu bàyyi mukk bakkan yi di nul nit ñi duñu xeex ba seen bakkan yi daanu ci ñuy bàyyi xeex bi muy nul am ñuy jóge fële seen i calories naan sama barke maam sama maamali ay fen la suñu yat la ñuy fàq du duñu may kenn koo xam ne suñu victoire bii nga xam ne am nañ ko accident ba noppi nga di ko récupérer suba parce que bi muy metti gisuñu kenn bi Macky di tëj di rey gisuñu kenn bi muy xooxatal di yàpp di dóor gisuñu kenn bi muy rey gisuñu benn sëriñ kenn waxul ñun kepp ñoo fi nekk di xeex tey bu ëllëgee na ko ñëpp xam bu fi kenn taxaw dégguñu benn sëriñ dégguñu kenn ku sant Mbàkke ku sant Si ku sant Cawlaay ku sant Cadaba ku sant Seck ku sant gis dégguñu kenn laa la wax ñun ñoo fi nekk di wax ak yàlla kott moo ànd ñun te incha allah rabbi dañu yàlla àndal soxla woo ay sëriñ ñun yàlla la ñu gëm moom nañu àndal soxla wuñu sëriñ kenn ta dañuy am dam ci li ci ni wala ci na bu leen arrêté taal bi na fépp tak na fépp boy ndakaru laa wax ndakaaru commencé leen na tal na tak Dakar na fépp tak lépp lu tàkkagul na tàkk oto yi na tàkk station yi na tàkk euh, parking oto yi na tàkk na lépp tàkk lépp lu ngeen bâtiment administratif yi gouvernance yeeg préfecture yeeg dem leen ngeen taal préfecture yi gouvernance yi commissariat yi ngeen daj ji yëpp génn prisonniers yi fa nekk na lépp tàkk na lépp génn lu ngeen fa fekk ci ay arme jël leen ko lu ngeen fa fekk ci ay grenade lacrymogène cocktail molotov jël leen dem leen Dakar na lépp boy Pikine Guédiawaye amul arrêté na lépp boy boum boum on est en guerre tey tey na lépp tàkk Dakar palais bi bu fa kenn demagut bu kenn nga waxi palais pale ñu waree dem palais danaa leen ko wax jóg leen Dakar na fépp tàkk fépp fu TFM RFM GFM euh, dégg nga maam 2 euh, vi na lépp tàkk loolu mooy Dakar seen mission tey tey tey tey tey da lépp tàkk nervi bu ngeen jàppati nag waxuma ngeen dagg ci coom nervi bu ngeen jàkk sotti leen ko essence ngeen taal ko mu tàkk laa leen wax wala ngelaw lu ëf ko mu nekk dóom waxuma amuñu di détaillé ak di wax ay naan oh, ku la ku la fay ak ku la ngeen enquête ko bu ngeen ko enquêté ba noppi mais na gaaw amuñu temps enquête ba noppi sotti essence sal mu tàkk ngeen avancé ay fetal lañ yor di rey di yóbbu ci ak di gas ay kàmb di leen ci sotti bàyyi leen seen xol yi ngeen yore di yërmande ko di layam layami dañuy xeex ay soldat lañu soldat day dëgër xol bi day wow continuer leen ci xeex bi te ngeen déglu li ma leen wax ngeen def ko bu ngeen bëgg ñu am ndam nu mu gën a gaawee ñëpp noppalu. maa ngi leen di di leen jox seen wàccuwaay di wax ne maa ngi xaar fii ak diir di xool ba xam situation bi nu muy évoluer ñan ñoo yëngu ñu yënguwul fan mooy yëngal ak fu yënguwul fuy tàkk ak fu tàkkul parce que maa ngi koy suivre en direct suñu éléments yi ñu ngi ci terrain bi dañu remonter les informations de façon secrète on a des dispositifs yoo xam ne ñoo remonter information yi au niveau du quartier général de commandement ici ñuy xam lépp daañu xam ku yëngu ku yënguwul kuy xeex ku yéexul am nañu image am nañu audio am nañu lépp ñu ngi ñu remonter les informations joxe nañ directives yi Dakar na fépp tàkk TFM la ñu wax Euh, ak journaux yi ñi nga xam ne ñoo ànd ak Macky Sall xam ngeen leen parking oto yi nekk ci VDN bi ak fépp fu mu nekk ci Almadies yëpp na lépp tàkk bu ngeen mënee baare aéroport bi ak Yoff ak Diass nañ ko arrêté région yi yéen ñëpp jóg leen région yi jóg leen pacifiquement yéen ngeen génn massivement lii mooy directive bi tey premier jour bi jour un muy day one di lundi tey tey lii mooy directive bi Dakar Guédiawaye Pikine Yoff euh, dégg nga maam euh, Kër Massar Rufisque les quatre ou cinq départements de Dakar jóg leen yéen ñëpp feu fë na lépp tàkk na lépp explosé Dakar nañ ko téye ba nga xam ne Macky Sall dina génn wax ak Sénégalais yi ne leen démissionné naa bàyyi naa réew mi léegi damaa bëgg dem bëgg ngeen may ma ngeen jéggal ma mu jéggalu moom Macky Sall na wàcc na bàyyi na réew mi démissionné na ñuy soog a xool lu ñuy def mais tant que lii amul boum bum boum boum le combat continue les gars à tout à parce que heure baa ngi dem ma bàyyi leen waaye daan lañ jox dajee ci kanam su ma defee évaluation nat xayma xool li ngeen jot a def ci live bi bu ma ci paree ay waxtu xool lu ngeen jot a def bu laajee matalaat ñëwaat defaat évaluation ak yéen jox leen ay information wax leen lu ñu war a def ñu continuer xeex bi amul tëdd amul nelaw amul taay yi amuñu benn yitte nag bu leen kenn dugal ci lenn lenn du xew-xewu tareexe xew-xewu diine ki xew-xewu gàmmoo ki xew-xewu màggale ki xew-xewu tabaski ki xew-xewu mbokk ki génte talu ñu dara benn yitte moo am ci réew mi mooy wàcce Macky Sall na ku nekk bàyyi sa xel na ku nekk bàyyi sa xel di leen jox daje ci kanam di leen wax jaaleen jëf na leen yàlla sàmm na sam senegal na ñu yalla may ndam te may nañu ndam ba noppi man oo ma ki na yéen mais man sikki sàkk mu ne yàlla may nañu ndam ba noppi lii ñu am ndam la dañoo bëgg ndam li gaaw rek mais ndam li moom mi ngi suñu kanam mi ngi nii may gis jóg leen ñu xeex futteeku leen jaaleen jëf ba ci kanam seen seen général Akhenaton moo doon wax ak yéen